الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala ci wërsëgal gi ñu wërsëgal ñu dellu si waat daje ci ab néegam di fas yéene jàng la nga xam ne muy ab téeréem suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam béggeel ñu ci ci suñu borom yàlla jalla wa ala mboolem ñuy def loolu dana wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem yónni ay malaakaam ñu wër leen mu leen di tudd ca malaaka yi ko gën a jege yal na yàlla boole ci suñu jataay bi mboolem ña nga xam ne it ñoo koy nar a déglu gannaaw ba ca ngant am ba teewuñu yal na yàlla boole leen ci mboolem yiw wuñ fi jële te it fayal ñu ñi nga xam ni ñoo dox suñu diggante ak ak ñoom di leen ko jottali fan yi tamit yéen ñépp xam ngeen ni ak màkk moom ubbi woon na keroog ba ñu woree la aj la weeri aj màkk yi tàbbi amma insha allah bu dee suñu réew officiellement ci semaine bi la ñuy commencé di dem ca néegu borom ba subhanahu wa taala am nañu yàlla baaxi ci ñun ñu war a bokk ci ñooñu su ko defee bokk na ci it sunu cheikh bi di cheikh Ousmane Niang yal na yàlla boole leen ñoom ñépp yombal leen seenu aj te yàlla dëppale ko ajug yenente ba sallallahu alayhi wa sallam te mboolem lu ñu bàyyi gannaaw yal na yàlla wuutu leen ca mboolem tuyaaba bu ñu fay jële it yal na yàlla boole ko jullit yépp yërmaande yàlla ak jéggalam gën naa yaatu ay mbindaa fanam kon incha allah ñu ngi war a dal tey suñu suro bi di suratul an'am yegg si woon ci fukkeelu aaye bi ak juróom-ñeent na téeméeru aaye bi ak fukk ak juróom-ñeent te suñu borom di waxee ni wa ma lakum alla taakulu mimma zukira ismullahi alayhi di àllarbay fukki fan ak juróom-ñett ci zulqaada 1439 ñu ngi nekkoon it le premier août ci la nga xam ne ni mooy 2018 kon incha allah ñu bàyyi Cheikh Ousmane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين وذروا راجع الإثم وباطله إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيبرم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه mooy yéen lan moo leen ñeel ba du ngeen lekk la nga xam ne dañ caa tudd turu yàlla wa qad fassala lakum ma harrama alaykum te teqalee na ñeel leen lañu araamal ci yéen illa ma turittum ilayhi lu dul loo xam ne da ngeen a loru jëm ca moom wa inna kasiran la yudilluuna bi ahwaa'ihim bi gayri ilm li bëri ci nit ñi dañuy réeralaate ci seeni bànneex yu ñu tegul ci benn xam-xam yu àndul ak benn xam-xam inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin sa borom yàlla moo gën a xam ña nga xam ne ñooy jéggi dayoo wa zaru zahira al ismi wa batina bàyyi leen lay feeñ ca bakkaar ak la ca nëbbu inna lazina yaksibuuna al isma ña nga xam ne ñooy faggu ay bakkaar sa yujzawna bi ma kaanu yaqtarifuun daañ leen faye la nga xam ne nekkoon nañ ko di ko faggu di ko dajale ci ay bakkaar wala taakulu mimma lam yuzkar ismu allahi alayhi bu leen lekk mukk nag loo xam ne kenn tudd ca turu yàlla wa innahu la fisq ndax loolu ak génnug topp la mi wa inna shayatina la yuuxuuna ila awliyaihim cheytaane yi nag ña ngay wax ak seeni farandoo ya wax yu mooy lépp loo wax ak nit ki ca sekkare li yujaadiluukum ngir ñuy dagg seen teg yéen wa in ataatumuhum innakum la mushrikun waaye bu ngeen leen bu ngeen leen toppee day xam leen ne yéen ay bokkaalekat ngeen mi ngi noonu mbokk bi ñu fi mujjee daje suñu boroom mi ngi ñu doon wax lu bari ci doxaliinu arab yi suñu boroom moo wàcc ci ñun jur gi mu nekk xéewal ci ñun rawatina li ñuy tudde al an'am giléem yi nag yi xar yi ak bëy yi ñoom ñu séddale ko am yoo xam ne dañ koy daganal ci ñi yee ñu daganal ca yee suñu borom nag ne jur googu lépp luñ ci tudd turu yàlla dagan na ci yéen ñépp ngeen lekk ko borom bi mu ne ana lu tey xéewal gi leen yàlla xéewalal ñu tudd ca turu yàlla lu tee ngeen di ko lekk ca teqalee na ñeel leen la yàlla araamal ci yéen lu jëkk mooy bokk na ay nit ñu sanku ñu leen di tuddee des végétariens xam ni ñooñee ñu tuddee ay rastafarisme ñu bari ca la ñu bokk ñoom dañ naan lu am ruux di dund comme yow waroo ko lekk mbokk loolu kaddu kéeféer la suñu boroom moo ñu bindal jur gi pour ñu lekk ko lépp loo ca tudd turu yàlla dagan na nga lekk ko borom bi nag mu ne man leeralal naa leen li ma araamal ci yéen li yàlla araamal soo delloo suratul baqara rawatina suratul maida dana ca wax lu bari donte ne mi ngi tënku ci ñeenti mbir mbir bu njëkk ba mooy médd ca mooy lépp lu dee ak nu mën a deeyee ca kenn tiimu ko rendi ko allahuma lu dul la ca sañu borom génne mooy la dee ci biir géej ñaareel bi mooy la nga xam ne mooy deret kaw kaw yi arab yi bokk na lu ñu daan def buñ demee ci àll bëgg a lekk amuñu lu ñu lekk ñu ñëw ci giléem gi rek jam ko deret ji di sotti ñu dékk seen ab këll ba mu fees ñu daal di teg ne ba mu xaw a waw ñu jël commencé lekk bokk na ci la nga xamee ni ni mooy yàpp mbaam xoox nga xam ni diine yépp a ko araamal la ka ñeenteel nag mooy lépp loo xam ne bañ koy rey dañ caa tudd leneen lu dul yàlla lii mooy baasu li yàlla araamal ci ñun borom bi nag mu ne xanaa lu dul loo xam ne da ngeen na loru jëm ca moom lépp lu araam ci wàllu lekk heure boo loroo dagan na nga lekk ko doonte ni ad darura tuqaddaru bi qadriha lor balay may nga lekk medd wala lor balay may nga lekk mbaam xuux mooy loo xam ne dem nga ba jort ne soo ko lekkul da ngay dee amma lépp loo xam ne mën ngaa muñ résister ba baa am leneen loo lekk amoo droit di lekk loolu amma ki ñu tëjoon cib kaso ña koy jox duñ ko jox lu dul yàpp mbaam xoox duñ ko jox lu dul sangara su boobaa da ngay gis ni islam dina ko defal grève de la faim ba dee bal mën na caa lekk lu muy résister ba baa muy am leneen doonte ne lii it ab jurit da ko war a bàyyi xel ci lu mën a doon ca mooy wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma illa ma turtum ilayhi leeral nañ leeral nañ ñeen leen li aram ci yéen lu dul loo xam ne ak lor moo leen ci yóbbu masalan tey jii sa doom ak sa soxna ma nga ni tëdd ca lopitaan ba ñu ne il faut bu ñu amul temps duñ ko laal yàlla nattoo woon nañu benn xale buy ñëw fi ci tafsir bi rek jamono nekkoon CTO dañ ne bu ñu indil huit cent mille duñ ko laal ah léegi luy pexe mbokk yeeg kii koo dem mu amul lum la dimbalee banque bi ne la man kat danaa la lebal huit cent mille waaye ba may fay da nga ciy teg un million wala lu mu mën a doon ala kulli xaal su boobaa ba ngay dem di jël loolu islam du la yedd ca loolu ndax lor moo la ci yóbbu amma nag kee nga xam ne dana dama bëgg ubbi sab cantine rek naa dem ca banque ba mu lebal ma teg ci intérêt dañ nan ko déedéet kon mbokk lépp loo xam ne yàlla da ko araamal jullit du dem di ci dugg lu dul cas extrême nécessité loo xam ne bu ko deful dana doon lor goo xam ne nii ab bakkan mën na caa rote allahuma lu dul ñi gën a yàq diine mooy ñi xamul ca noppi wuñu benn jeune nettali na ma bu nekk Italie nee na am nañ fay ku ñuy tudde borom xam-xam nee na leen wër di njaaloo moo garaaw waaye yéen ñi bàyyi seen soxna ca dëkk ba ku ci dem ba sonn dem ci ab ruq def fa la nga fay def muñaat ba baa ngay sonnaat loolu dara newu ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bokk loolu xam ngeen musu mun ko passé fu ñu mës a gis ñu ne nit daa dee lu ko rey ñu ne am ko daa gëj a dugg kër ku ko mës a gis loolu ala kulli xaal bokk loolu bokku ci kon daal ñu xam ne lépp loo xam ne sa bakkan mën na caa yem def ba nga koy def islam di la ko toppee borom bi nag ni li ëpp ci nit ñi day dañuy réeralaate ci réeral ga ci bànneex rek lañ ko teg teguñu ko ci xam-xam ca mbokk ñi ci démb day am na ñu leen daan réeral ñu jàpp ne dañoo am xam-xam mais malheureusement ñun ñuy dund société boo xam ne benn waay bandkat day jiite des centaines de milliers ci ay nit ba pare taxaw na leen man ku may seet ci téere doo ma gis ndax jàngu may téere kee taxaw ne man diine jii nga xam ne base bi mooy alquran ak waaw day xam naa ko ci ndax daa nuróog neuf yaa ngi dégg loolee mbokk nit ñi xam ne kii xamul jàngul ba pare ñu topp ko yaakaar mu texe leen àdduna ak alaxira loolee mbokk da ngay gis ne yéefér yu jëkk yi sax am nañu bëri ñu ñu tane ndax dañoo jàppoon ne ñooñ doon topp xam-xam mi ngi ci ñoom almuhim mbokk julit doomu aadama bi da nga war a toppaate waaye kan ngay topp ki nga xam ne lam lay wax da koo teg ci xam-xam ne la suñu borom yàlla mi ñu bokk bi ñu day lii la wax suñu yeneen ci bi mu yónni woon ci ñun day lii la wax lii mooy la nga xamee ne nii mooy li war amma malheureusement suñ jamono yi tey rajo yaa ngi wax vingt quatre sur vingt quatre télé yi di wax vingt quatre sur vingt quatre ba sëñ diw ne ba góor diw ne ba bay diw ne ba nangam diw ne wax joo xam ne amul benn sukkandikaay buñ koy sukkandiku ngal la wa yow mi borom xel fi xel ba bul topp ñooñu suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne bàyyi leen li feeñ ci bàkkaar ak li nëbbu ci bàkkaar bokk na ca li feeñ ci bàkkaar bàkkaar yi cër yi di def njaaloo yaag naan sangara yaag carte yaag agression yaag yu deme noonu bokk na lu ci nëbb mooy la nekk ci biir xol ya shirk yaag iñaan yaag rëy yaag ila axiri waaye bokk na zahiral ismu wa batina mooy la ngay def ci mbooloo mi ñi du ko gis ak la nga xam ne boo wéetee di ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sama xeet dana ci ñëw yowmal qiyaama seen tuyaaba tol ni montagne yàlla xisaab leen yóbbu leen sawara ñu ne ko mu yàlla yoon lu waral loolu mu ne ay nit lañ yoo xam ne seen jaamu yàlla mi ngi yemoon ci bëtu nit ñi amma fu ñu masaan wéet daal di xotti war ma yàlla xotti ndigal yàlla kon bàyyi leen zahiral isma batina bokk na lu ca borom xam-xam yi dolli bàyyi leen li feeñ ci bàkkaar ay bàyyi leen zahiral ismi loo xam ne dafa feeñ nuru bàkkaar ak lay bàkkaar dëgg-dëgg te muy jullit moytul di def loo xam ne ku ko gis day jàpp ne da ngay def bàkkaar ndax loolu dafa mën a jur fitna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na ca jàkkaam ja di itikaaf benn soxnaam di safiya dikkal ko yonent bi ci guddi gi muy dem mu génn di ko gunge ci kuuru jàkka ji ñaari jeune ci waa ansaar seen yonent bi daal di daw ci lëndëm gi mu ne leen kaay leen kaay leen ñu ñëw mu ne leen kii safiya la sama soxna ñu ne ko ah yi mu yàlla yónni ah ñun la ñuy xalaat ci yow mu ne déedéet seytaane day daw ci doomu aadama ni deretam di dawee te mooy ñoom mën nañ dem ah waaye yonent bi lañ gis ci guddi gi man dog soxna moom ku mu war a àndal waay yaa ngi dégg loolu it mi ngi noonu su ko defee yow jullit moytul même bu doon da ngay ànd ak sa soxna di dem ci ay hôtel ànd ak sa soxna di dem ci ay auberge su fa nit dajee koo xam ne xam na soxna si ci xamul góor gi mu àndal bu demee dañ ne bismillah jàmm ay waay maa jommi man da maa dajeeg diw mu ànd ak góor ca auberge ba wala ca hôtel ba wala maa dajeeg diw mu ànd ak soxna ca hôtel ba yooyu dañ koo war a moytu ngi noonu su ko defee lépp loo xam ne nuru na bakkaar moytu ko baar baa ngi ne bëgg ngaa naan sa boisson dugg ca baar ba commandé boisson naan ndax jullit war ngaa def loolu déedéet ndax say mbokk jullit buñ la gisee nga génne ci baar bi loolu day nekk tuuma kon moytu leen bakkaar moytu leen lépp loo xam ne dafay nuru na yéen a ngi def bakkaar zaru zahirul ismu wa batina borom bi nag ne ñi nga xam ne dañoo sax ci bakkaar lañu faggu ca bakkaar ba yàlla mu ne danaa leen ko fayee te wallahi soo xamoon màggatum góor jigéen boo xam ne tuubul ba nga gis ko da nga xam ne yàlla fay na ko am déet màggatum mandikat bu tuubul ba màgget boo ko gisee xam ne yàlla fay na ko mandite ga bépp jigéen buy jaay boppam ca tuubul nga gis ko mu màgget da ngay xam ne yàlla fay na ko lu mu doon jëf amul benn bakkaar bu mag bu doomu aadama ji def tuubu ko lu dul yàlla fay ko ko ci àdduna bokkul ak nag fay ba ko yàlla di xaare alaxira daañ leen fay lañ doon jëf borom boobu nag subhanahu wa taala ni ay yéen jullit ñi fexe leen nag ba bu leen lekk loo xam ne kenn tudd ci turu yàlla mbokk jullit lépp loo xam ne dafay am ruux dundul biir géej bala nga ko lekk dañ cey tudd turu yàlla lu dul loo xam ne nii rasul sallallahu alayhi wasallam it génne na ko ca muy li nga xam ne mooy njéeréer yeeg soccet yeeg yu demee noonu donte ne Sénégal yi du ko lekk waaye boo demoon Arabie saoudite am na fa marché boo xam ne ay njéeréer rek la ñuy jaay yaa ngi dégg ala kulli xaal lépp loo xam ne ay jur la guy dund buñ ca tuddul turu yàlla bu ko lekk borom xam-xam yi am tuuti tuuti ixtilaaf bokk na ñi ci gën a sévère mooy la ñuy tuddee mazhab malik tuddee mazhab malik moom dañ naan xar mi nga rendi ko nga fàttee wax bismillah xar moomu kenn du ko lekk kenn du ko lekk biñ koy rey tudd ñu tur yàlla kenn du ko lekk boo demoon ko mel ni abu hanifa moom danaan bu dee yaa ko tey moom kenn du ko lekk mais bu dee danga koo fàtte yàlla baal na xeet bi la mu fàtte soo demoon nag lu mel ne ngëru imam Shafii ñoom dañ naan jullit mi ngi ànd ak turu yàlla te ñoom nañ koy jàppee mooy jullit maadaama yaa ngi tànn ba xool li dagan nga jublu pour rey ko loolee turu yàlla mi nga ànd ak yow waaye ñetti wax yooyu boo ko boolee bokk na ba ci gën a digg doomu mbokk jullit doo tey mukk di rey ca waxul bismillah gàlla waay buñ ko defee waroo ko lekk ku xam loolu waru ko lekk am maana bu dee da nga fàtte yàlla moom danañu bal lu ñu fàtte waaye mbokk yàlla bokk ñu lum ñu nattoo lu bari ci nit ñi tey bu ñuy rey dañ naan barke suñ diw la ñuy rey mbokk suñ diw bindul xar mi de bindul nag bi bindul loolu loolee képp koo xam ne dégg na kay rey wax loolu yàpp boobu xaram na doomu aadama di ko lekk te mooy wa ma uhilla li xayrillahi bi naka noonu itamit mbokk farata la kon li ñuy rey ñu wax ci bismillah waaye même bu dul li ñuy rey ay waay ndox mi ngay naan xéewal lu ko bawoo ci yàlla àdduna buñ daje woon mënuñu bind kaas ndox boo jëlee sa ndox di naan waxal bismillah ceeb bi ngay lekk waxal bismillah tàndarma bi ngay sex lépp loo xam ne jullit yaa ngi koy lekk waxal bismillah donte ne loolu lu ñu sunnal la am maa nag loo xam ne moom daa am ruux fokk buñ koy rey ñu wax bismillah te it mbokk ñu xam ne suñu diine ji mooy diine ju sell wallahi maa ngi dégg benn docteur muy expliqué ne bari na tey Europe ñuy dem ci place yi ñuy jaay xalaal mooy fi jullit yi jaay di fa jënd ca ñoom sax duñu ay jullit lu waral loolu mbokk ndekk ci gis nga reyam lislaam wala rendig lislaam ndax mooy yonent bi alayhi salatu wasallam ne nañ dagg put gi ak sujit yi tolloo ak moom tey jii boo dellu woon lu bëri ci Occident nag yeeg bi demoon dañu rek machine bi dagg ba bi sànni fële ñu daal di koy décapité mu jeex mais ñu ne lépp loo xam ne dañoo ñëw rey ko dagg ba bi deret ji génn ci yaram bi daanika ceer ba mooy génn wala génn wàllu ceer ba muy deret boobu nga xam ne damman masfuuxa la nga xam ne microbe yëpp ca la nekk am maa nag bu dee dañoo dagg put gi ak sijil yi yuur gi avant muy dee dana am ordre yi muy jox yaram bi moo tax gis xar bi di bëgg a jóg ah di bëri bëri noonu su boobaa xol bi day dégager desutu yaram bi desutu deret bi nekkoon ci yaram yépp déchet bi génn ko génn ko ba mu jeex loolee suñu borom yàlla mi bind xam ne ne loolu baaxul moo tax deret boobu mu araamal ko ci ñun boo ko rendiwul day tasaaroo ci biir deret bi moo tax vétérinaire yi sax dañ daan wax naan heure boo jëndee yàpp nga koy dagg deret di tuuru rek xamal ni lii lu métti la kenn rendiwu ko amma lépp lu ñu rendi ba deret yépp dégagé doo ko dagg deret di tuuru lii kon mbokk ay mbir la yoo xam ne islam mi ngi ñuy ah yóbbu ci loolu borom bi nag ne bokk na génn topp di lekk loo xam ne tuddoo ci turu yàlla fisq la amma li suñu borom ne cheytaan yi dañuy wax yu seeni waliyu yi lenn ci yéeféer yi dañ daan ñëw ci sahaaba yi naan leen yéen daal yéen doy waar yéen ngeen ne lu ngeen tiim ren di ko dagan naa lekk amma lu yàlla rey moom nga ne daganu la lekk yéen a gën a sell yàlla yaa ngi dégg suñu borom nag mu ne loolu waxi cheytaane la donte ne na mbokk suñu borom yàlla di du wàcc di ren di am xar am déet wala di wàcc ren di am nag ca muy kon am na loo xam ne dafa dee dee goo xam ne nii sobe yi ci nekk génnul ñépp ñi xam xam nañ ne feebar yu bon yi tasaaroo ci ñun lu mel ne Ebola bi nga xam ne moo fi ñëwoon at yi passé dëkk yam cosaanoo ca Centrafrique mooy ci Afrique centrale bi nga xam ne nii fa la lu bëri ci yéefar dëkke dañ naan le mi ngi cosaanoo ci rab yi dee ci àll bi ñu koy jël di ko lekk ca mooy lépp lu médd ca la feebar yooyu jóge kon suñu borom yàlla subhanahu wa taala mi bind ca xam doonte ne mooy rey lu mu mën a doon waaye moo ñu wax ne lépp loo xam ne rendiwu leen ko ba deret de tuuru ngal la waaye bu leen ko lekk borom bi subhanahu wa taala nag ne képp ku topp ku lay daganalal la yàlla araamal yow loolu yaa ngi koy bokkaale ak suñu borom mbokk bokkaale yàlla du samp ab xërëm rek di ko jaamu waaye bokkaale yàlla bokk na ca lépp lu yàlla farataal nit ki jox lu ndigal nga nga bakko julli la koor la zakat la kooku mooy sa yàlla lépp loo xam ne nii suñu borom yàlla da koo araamal mu jox la ndigal ne la def ko nga wëlbatiku di ko def kooku mooy sa yàlla loolu la ñuy tuddee shirku taa bokkaale ci wàllu ak topp loolu ku ne ci ñun war na ci bàyyi xel yàlla nañu yàlla tënk ci topp yàlla ko yeneen tam mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليذكروا فيها وما يذكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا ينكرون بارك الله فيك أو من كان ميتا فأحييناه amoon ndax ki nga xam ne daa nekkoon di aji dee ñun yàlla ñu dekkal ko wa jaalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas defal ko ak leer gu muy doxe ca biir nit ña kama masaluhu fi zulumaat ndax kooku dana yem ak ki nga misaal ci ki nga xam ni daa nekk ci biir lëndëm ya laysa bi xaarijin minha nekkul kuy mën a génn ci lëndëm yooye kazalika zuyina lil kafirina ma kaanu yacmaluun naka nii de lañ taarale ñel yéeféer yi la nga xam ne nekkoon nañ di ko jëfe wa kazalika jaalna fi kulli qaryatin akaabira mujrimiha li yamkuru fiha naka nii de lañ jëfe ci bépp dëkk ña gën a màgg ca ay def ko ci bakkaaram ya ay kaccooram ngir yee ñuy fexe ci dëkk boobe wa ma yamkuruuna illa bi anfusihim wa ma yashkuruun waaye nekkuñu day di fexeel lu dul ñeel seeni bakkan doonte ne yëguñu loolu wa ida jaatuhum aaya heure bu leen dikkalee aw kawteef qaalu lan nu'mina xatta nu'ta misla ma utiya rusulullah ñu ne hey ñun day duñu gëm lu dul ne dañ ñoo dikkee jox ñu ñu nit la nga xam ne moom lañ joxoon yonent yàlla ya allahu aalamu xaysu yajalu risalata yàlla nag moo gën a xam fan lay def ay yonentam mi ngi noonu ay lettre yi muy yónni sa yusibu alladina ajramu sagarun inda allah dana dal moos ca ña nga xam ne dañoo def ko ci bak ay def ko ci bakkaar lañu ak suufe ca seen boroom wa azabun shadidun bima kaanu yamkurun ak mbugal mu tar ca lañ nekkoon di ko fexe mi ngi noonu mbokk julit doomu aadama yi dox ci kaw suuf ñaar lañu am na ci ñuy dund am na ci ñuy dee ña nga xam ne ñuy dund ca yàlla mooy ñi nga xam ne xam nañu li laa ilaha illa allah di ko dund te mooy jullit ñi nga xam ne dañoo am ngëm amma yéeféer yi sunu yàlla sunu borom mu ne amwaatun xayru ahya ñoom day ay médd lañ ñu dee dunduñu amma nag ñooñee nga xam ne nii xamuñu woon diine ñu considéré la woon presque ñu dee suñu borom nee na ñooñu day am na ñoo xam ne ñoo leen ca dundal may leen la nga xam ne muy ngëm gannaaw ba ñu dolli ci ak leer ca mooy xam-xamu alquran mi ngi noonu walakin jaalnahu nuura muy alquran boo xam ne moom lay doxe ci nit ñi ca mbokk ngëm yàlla kese doyul ngëm yàlla da nga caa war a boole nag dem jàngi lan muy ndigal yàlla ndigal yàlla googee muy leerug yàlla googee moo lay jàngal nooy jëflante ak kilifa yi nooy jëflanteeg say waajur nooy jëflanteeg sa soxna nooy jëflanteeg dëkkandoo yi njaboot gi say noon ci lislaam nooy jëflanteeg ñoom booy attee nooy attee ila axiri yamshi bihi fi nnaas leer gu muy dox ci nit ñi mu ne waaw ko yàlla may ak leer mu xam fu muy jaar ku ne mu xam nu muy def ak moom ndax dana yem ak ki nekk ci ay lëndëm yoo xam ne mënu caa génn ca loolu mbokk moom mooy ki nga xam ne gëmul diine addunaam yépp lëndëm la te loolu dañ koy xool ci yéeféer yi xamuñu nu ñuy jëflante ak kenn ci doomu aadama yi lu dul ne loolee da ngay gis lu ñaaw rek mooy la ciy mujj ca loolu adduna gi lay tàmbale amma alaxira nag la leen di dugal ci musiya gën a garaaw ci musiba borom bi nag nee ne nii laa taarale yéeféer yi lañ nekkoon di ko jëf looloo tax ba yéeféer la ëpp ci ñoom suñu borom nee na ñoog bàyyi may ñoo yem bal suñu borom nee na bàyyi may sax ñoo leen tane loolu ngir seen bànneexu bakkan ya ñu topp loolu moo leen yóbbe loole borom boobu nag nee na yow yonent bi bul am lu la métti bépp dëkk bu mu mas a yónni ay yonent boole naa kook ay noon def ko te bakkaar yoo xam ni ñoom ñooy fexe ngir fay woo teg yonent boobee ca loolu borom bi nee na seen bopp rek lañ koy def waaye xamuñu dellul ca qawmu nuux suñu borom nee na wa makaru makaran kubbaara saay-saay sa fa nekkoon campagne nañu dëkk ba da leen nuux mi dafa dof bu leen dara jaral bàyyi seen yàlla yi noonu la xeet yi tegaloo suñu borom di leen alag di leen alag ba saay-saay ba firawn taxaw na ci xeetam na leen xuuma keneen ku ngeen war a jaamu ku dul man maa alimtu lakum min ilahin gayri wa ana rabbukumul aala man maay seen buur bi gën a kawe lii lépp mbokk da ngay gis ni ndax suñu yonent yàlla mucc na ci déedéet borom bi mu ne wa iz yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuka aw yuxrijuuka aw yaqtuluuka ila axiri xatta moom sallallahu alayhi wa sallam waa makka kaccor yu mag yee ñoom abu jahal ñoom umayya ibnu xalaf ñoom walid ibnu mughira daje nañu benn réunion ci nu ñuy def ak muhammad mi ba noppalu ci moom am ñu ne nañ ko rey am ñu ne nañ ko génne am ñu ne nañ ko tëj histoire ba fa mujj mooy kon nañ jël ci famille makka bu nekk benn ponkal ñu daje rey ko su ko defee famille duñ mën a xeex ak ñëpp waaye suñu borom yàlla mu ne seen bopp rek la ñuy pexeel suñu borom musal na ab yonentam wëlbati ko waat dajeeg ñu ëpp ci ñu doon nekk ci réunion boobu ca Badr rey leen reyin boo xam ne nii moo leen yóbbu naari jahannam almuhim mbokk julit kon lii daf ñuy jàngal julit foo toll del fagaru del fagaru ci sa njaboot. ba ba àdduna di tukki du ñàkk mukk ay nit ñoo xam ni seen pexe mooy nu ñuy def ba réeral doomu aadama yi nu ñuy def ba doon ñoo xam ne nii ñoom la nit ñi di déggal loolu nag ku nekk ci ñun da caa war a bàyyi xel borom bi nee na kawtéef bu mu mën a wàcce jox sama yonent ana lu yéefiri doon wax ñun daal bala ñoo gëm yàlla mi ngi wax ak yow na yàlla wax ak ñun na yàlla wàcc ci ñun itamit téere su ko defee ñu mën leen a gëm loolee lan moo ko waral muy ak rëy yonent bi alayhi salaatu salaam nee na rëy day mooy batarul xaq wa xamtu nas bañ dëgg xeeb doomu aadama yi loolu tax rëy googu ñu rëy woon yowmal qiyaama suñu borom du yem ci mbugal leen mbugal moo tar waaye da cee boole toroxal leen ak toroxal ga gën a suufe ci toroxal borom boobu subhanahu wa taala mu ne li waral loolu mooy li nga xam ne nekkoon nañ ko di ko fexeel sama diine ji yal na yàlla musal ñu ci pexey noonu diine ji bismillah
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم بارك الله فيك فمن يريد الله أن يهديه képp ku yàlla bëgg ci jubal ko yashrax sadrahu lil islaam dana yaatal dënnam ba ñeel lislaam wa man yurid an yudilla ku yàlla bëgg na ngir réeral ko yajal sadrahu dayiqa day def dënnam ba muy xat xaraja doon lu fat ca muy xat gu tar ka annama yasaadu fi sama mu mel ne koo xam ne dafay nekk di yéeg jëm ca kaw asamaan kazalika yajalu llahu rijsa ala alladina la yuminuun naka nii de la yàlla di defee ak sobe ca ña nga xam ne gëmuñu wa hada siraatu rabbika mustaqima lii nag mooy sa yoonu borom bu jub kocc qad fassalna al ayaati li qawmin yazzakkaruun teqalee nañ aaya yi ñeel xeet yi nga xam ne dañuy fàttaliku lahum daaru salaami inda rabbihim dana leen ñeel kërug jàmm ga ca seen boroom wa huwa waliyuhum bima kaanu yacmaluun ca mooy seen féete ca la nga xam ne nekkoon nañ di ko jëf wa yowma yaxshuruhum jamia bis bam leen di fang dajale leen mboole seen dana wax yaa machar al jinn ey yéen mboolem jinne yi qad istaksartum min al ins bari lay woon ngeen lool ci ñi ngeen réeral ci nit ñi wa qaala awliyaauhum min al ins noonu la waxe seen péete yi ci nit ñi rabbana stamtaa baaduna bi baad ey yàlla daa bànneexu woon lenn ca ñun ca la ca des rek wa balagna ajalana alladi ajjalta lana ca jot nañ it dig ba nga xam ne digal digal nga ko ñeel ñu sunu borom ne qaala naaru maswaakum sawara day mooy seen wàccuwaay seen daluwaay xaalidina fiiha illa ma sha allah ngeen safa ba faw lu dul lu neex yàlla inna rabbaka xakimun alim sa borom yàlla mooy ku xereñe ki ku xam lépp mi ngi noonu bokk suñu borom mu ne ki nga xam ne da koo namm jubal yàlla na yàlla boole ñu ca waaye mbokk ki yàlla namm jubal mooy ki sakko ak njub ñi ngi noonu wa yazidu llahu lazina ihtadaw huda koo xam ne yàlla xam na ci yow yaa ngi bëgg sakku njub suñu borom nee na day yaatal sa dënn ci lislaam nga comprendre lislaam nangu lislaam looloo tax jullit suñ ne ko da ngay julli juróomi waxtu day bëgg loolu aj makka naka noonu lépp lu yàlla dogal buñ ne ko ku njaaloo dañ la war a duma wala ñu rey day nangu loolu ki sàcc dañuy dogal xam day nangu loolu lu tax mooy yàlla yaatal na dënnam ba lépp lu yàlla digli loolee da koy nangu comprendre ko te loolu da ngay gis ne yonent yàlla Muusa moom la ñaanoon suñu boroom ba mu ko yónnee ni ko demal ci firawna nga waar ko muy mission bu metti woon ci Muusa ndax ba muy jógee ci firawna dafa reyoon nit daw ñu bëggoon ko rey moo tax la mu jëkk a ñaan yàlla rabbi sharah li sadri te yàlla yaatalal ma sama dënn ba mission bi doon loo xam ne lu woyof ci man la suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla moo ko jox xéewal alam nashrah laka sadrak ndax yaatalu ma sa dënn ba mission bi nga xam ne bu diis la woon yàlla yaatal ko ba mu woyof ci yow kon ku yàlla nar a jëbal dana yaatal dënnam mu comprendre l'islam nangu l'islam borom boobu nag subhanahu wa taala ne ku mu namm ci réeral la te borom bi mu ne fa lamma zaagu azaaga allahu qulubahum képp koo xam ne da ngaa tànn jaar yoonu réer suñu borom réeral la borom bi nee na ko mel noonu day def dënnam mu xat gën jaa tar ci xat du mën a dégg dara ci ndigalu yàlla daw ba kër masaara koy gënal taxaw di julli dem ca night club yàq fa un million moo ko gënal joxe cent mille zakat lépp luñ ko wax gis jigéen bu muuru day mel ne ay buccëcam la gis képp comme gis ngay dund diine loolu da koy naqari lu tax mooy islaam dafay doon lu xat ci ab dënnam borom bi subhanahu wa taala nag ne dafay mel ni ku yéeg jëm koo asamaan ca mbokk na am arab yi amoon nañ léeg-léeg yenn expérience bu ñu ma san yéeg ci montagne yu kawe daa nga am problème pour noy am na ñun ñi yàlla may nag ñu mën a dem di milliers de mètres ci kaw asamaan yéen ñëpp xam ngeen ne avion na muy demee bu doon te ne doomu aadama fa avion ba nekk dañ koo génne woon balaa cinq minutes mu dee ndax oxygène amul foofu donc day exploser ay lépp lu ay poumon ak ay affaire am ala kulli xaal suñu borom yàlla subhanahu wa taala xamal nañu ne lu yàgg ndekete yóote kuy jëm kaw asamaan doo mën a noyyi ca loolu yonente bi alei salaam fu mu xamee woon loolu mënu loolu xam loolu abadan suñu borom yàlla nag ne yéeféer yi noonu lay defee ak sobe ci ñoom ba lépp loo xam ne da leen di jëriñ ci àdduna ak alaxira duñ ko mën a dégg amma yow jullit moytul sa kemtalal kattan di bañ lenn lu bokk ci sa diine suñu borom mu ne fala wa rabbika la yuminuun hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt jullit day balaa ngëmam a baax lépp diineem lépp addunaam da koy atte woo téere bi yàlla bi te lu yàlla atte du ci am benn ñagg-ñagg borom bi nag ne diine ji mooy diine bu jub leeral nañ ko ñeel képp koo xam ne da ngay fàttali ko mbokk suñu borom daa am aw yoon wu jëm ci ngërëmam yoon woowu mooy alquran ak sunna ku la bëgg a teg ci beneen yoon bulul boobu da laa bëgg a réeral haada siraatu rabbik yoonu borom baa ngi nii mustaqima direct ilal janna ku ca topp fa nga jëm ku ko bàyyi gannaaw day bàyyi nga ko gannaaw borom boobu nag subhanahu wa taala ni ñooñu nga xam ne ñooy fàttali ko ba tega ci yoon ba kërub jàmm ma nga leen di xaar ci seen borom mbokk àjjanaa ngi noonu boo tegee sa tànk rek problème jeex na problème doo ko gis doo ko dégg doo ko xalaat jamais jeex na looloo tax bokk na lu ñuy wax alhamdulillahi lazi azhaba anna alhazan ci sa njaqare amul lenn loo xam ne am na àjjana bànneex gu na boy jàmm gu na boy yal na yàlla def ko muy suñu kër mooy daaru salaam borom bi nag ni day nekk ca seen borom bi nga xam ne moom mooy ka nga xam ne moo leen di féetewoo ngiree jëf yu baax yi ñu doon jëf àjjanaa ngi noonu ngalawaay nañu xam ni suñu borom da ko waajal ñi doon jëfee ay ndigalam mooy seen féete ci lañ doon jëf waaye avant ñuy dem aljanna borom bi subhanahu wa taala dana dajale ñi nga xam ne ñoo jaarul woon ci aw yoonam yàlla xam ñaata la ñuy doon ci milliard su ko defee mu ne leen ay yéen jinne yi yéen day bari ngeen lool ñu ngeen réeral ci nit ñi suñu borom ne ña féete woon ak ñoom ci nit ñi ndax alaxira day doon place yoo xam ne léeg-léeg dañuy wax ci duñu sañ a bañ a wax bu ko defee ñoom ñu ne ay yàlla ñun kat ku nekk da doon bànneexoo sa moroom te mbokk bànneexu jinne ci nit mooy lan bu fexee ba réeral ko ci yoonu yàlla rek moom kontaan na su fexee ba tàbbal ko ci ay kabaayir moom kontaan na loolu mooy bànneexu jinne ci nit am naa nag nit ñi nu ñuy bànneexoo ci jinne yi mooy di collaborer ak ñoom ñu leen di indil ay xabaar di leen njabaral di leen dofaloo ña ñu bëgg ñu dofloo leen di leen yónni ci loo xam ne da leen di jëriñ loolu mooy la nga xam ne mooy am waaye amul kenn koo xam ne ay jinne daan nekk ci service am lu dul li yàlla wax mooy am istamtaa baaduna bi baad yàlla yenent yàlla suleymaan la mayoon jinne yi nekk ci service am mu neex leen ak mu naqari leen amma ke ñeen ko dul yàlla nga gis koo ki xar baaxam nga yëg ko yéegoo ko am na lu muy defal jinne yi te loolu muy defal jinne yi du dara lu dul kéefér aka bari ay njabar yoo xam ne ay kaamilu alxuraan la ñuy suul ca la ñuy saw guddeeg ba cëkk aka bari ci ñoom yoo xam ne ni ay deretu mbërëg deret règle la ñuy jël di ci bind ay borom bi aka bari ci ñoom ñoo xam ne ni ay bakkanu doomu aadama la ñuy sacrifice ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ak kéeféer la su boobaa nag jinne di ñëw doog laa defal la nga xam ne moom nga bëgg loolu kon ku nekk ci ñun war naa bàyyi xel ci loolu bu baax borom bi nag ne waaw baax na comme bànneexu woon ngeen ci àdduna léegi nag dajaloo leen ngeen dem tabbi sawara lu dul la nga xam ne moo neex yàlla sa borom yàlla mooy hakim ak alim sawara ñaar moo fay dugg kii la ko fa dugal mooy bakkaar yu mag waaye shirkul akbar bokku ci lu mu fa yàgg-yàgg heure bu soobee yàlla mu génne ko yóbbu ko aljanna amma ña nga xam ne nag shirkul akbar moo leen fa yóbbu ñooñu ñoom bu ñu xësee ba dugg duñu fa génn ba faw yal na yàlla musul ñu jaar sawara musul ñu sax sawara mi ngi noonu Cheikh Ousmane وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون جزاك الله خيرا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا naka nii de la ñuy féetale lenn ca tooñkat ya ca la ca des bi ma kaanu yaksibuun ca lañ nekkoon di ko faggu yaa machar al jinni wal ins ey yéen mbooloom jinne yi ak nit ñi alam yaatikum rusulum minkum ndax dikkalu leen woon yenent yu bokk ci yéen yaqussuuna alaykum ayaati ñuy jàng ci yéen la nga xam ne mooy samay aaya wa yunzirunakum liqaa yawmikum haza di leen xuppoo di leen waar ci la nga xam ne ni mooy seen dajab bisub tey bi qaalu shahidna ala anfusina ñu ne ay yàlla seede nañ ci suñ kaw bakkan yi de wa xarratuhum alxayaatu dunia noonu la leen ware woon dunduk adduna gi wa shahidu ala anfusihim annahum kaanu kafirin nii lañu seedee ci seen kaw bakkane it ne ñoom day nekkoon nañ di aji weddi dalika an lam yakun rabbuka muhlika alqura bi zulm li waral lii mooy nekkul mukk sa borom muy alak benn dëkk ci bàkkaar ba ñuy def wa ahluha ghafiluun te fekk njabootug dëkk ba nekk nañ ñoo xam ne ñu saggan lañu ay ñu kenn mustawaar lañu mi ngi noonu mbokk suñu borom nee na ni mu bàyyee jinne yi ñuy nekk di jëflanteeg nit ñi ku nekk di gis intérêt ci sa moroom naka nii it tooñkat yi nii lañ leen di yàlla di féetale leen su ko defee mboo ko tooñkat tooñkat ne moom dong mooy jóg di ko défendre mi ngi noonu amma suñu yonente alayhi salaam lu mu ñu waxoon mooy dimbilil sa mbokk bu tooñi waaye dimbili ko buñ ko tooñee ñu ne ko waaw yu mu yàlla yónni buñ ko tooñee moom xam nañu waaw moom bu dee moo tooñ nag mu ne su boobaa jàppaleen ci loxoom nga ne ko diw yaa tooñ delloo la aqi jàmbur bokk na it li borom xam-xam yi di wax li yàlla ne bépp tooñkat yi nii laa leen di féetale ñu ne mbooloo moo gis ña leen di jiite mooy ñu méngoo ak ñoom réew moo gis na waa réew ma mel rek noonu la njiit yi di mel lii bi ko borom xam-xam yi wax ëpp na junniy at booba élection yii ñuy xewal sax xewagul woon waaye daanaka lu ñuy gis la léegi moo di ne ni président bi ñuy fal la ëpp ca réew ma ñuy ñëw woteel ko ñu fal ko almuhim bàyyil xel yow doomu aadama képp koo jël mu nar a nekk sa kilifa ngal la way bàyyi ci xel sa digganteeg sa borom bu ko tànnee rek ni kii jàpp naa ne moo mën a redresser réew mi ci wàllu économie waaye ñooñee di ñëw di laaj ay baat ci réew mi xool ca ka nga xam ne jàpp nga ne kat kii day mooy ka nga xam ne moom laa jàpp ne mooy gën a matal sama wàllu diine moo ëpp njëriñ ci sama wàllu diine mi ngi noonu mu des nag ixtilaaf ba am ci dañuy wote bi ñu war a wote loolu moom beneen mbir la waaye la kulli xaal bu la yàlla boolee ca ñay wote ji sa priorité bu mu nekk ka lay jëriñ ci àdduna waaye sa priorité na nekk ñii di woote ku ci ëpp njëriñ ñeeri lislaam ndax suñu borom mu ne kazalika nu walli baada zalimina baada borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne ay yéen nit ñi ak jinne yi yéen ñi nar a dem sawara xanaa ay yeneenti dikk luñ leen woon di leen waar ci daje bi ngeen war a daje ak tey di leen jàngal suñu aaya ñu ne ah kay yàlla seede nañu suñu bopp ne day mësuñu dégg ay ndaw yi woote jëme ci yow doonte ne ne yonent yooyu yegguñu ci nit ak jinne yëpp waaye yonent yi dañu am ñu leen doon jottalil li jëkk mooy jinne amul yonent jinne li mu am mooy ñuy waaraate mi ngi noonu su ko defee ñoom ci nit ñi la ñuy jëlee di jottali seeni mbokk jinne yi yonent bi alayhi salaam it la mu waxoon mooy ballihu anni waxoon na sahaaba yi jottali leen ma sahaaba yi ñoo jottali alxuraan ji ñu tiim jottali ko génération yi ñëw génération yi jottali leen ko ba baa muy yegsi ci ñun suñu warugar ñu nit moo ñu jottali ko génération yi nekk suñu gannaaw ah kay yàlla la nga xam ne kay mooy yonent dikkaloon nañu waaraate ka di waar nañu nu leen yóbbu ñu nar a dem sawara nag suñu borom mu ne àdduna moo leen wor kan la waaye mbokk julit moytul àdduna wor la àdduna bi bi nga fi ñëw indi woo dara bis boo fii génn doo yóbbu dara diggante bi li li fi yàlla dénk sàkku ci ngërëmal yàlla bu ko topp ba fàtte lan moo taxoon nga ñëw ci kaw suuf ñëwoo woon ci kaw suuf pour nekk père de famille wala nekk ab soxna nii médecin nii maçon nii électricien da ngaa ñëw ci kaw suuf ngir jaamu yàlla wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun lépp loo fekk ci àdduna yàlla da ko fay def pour mu jàppale la nga jaamu yàlla bul bokk ci ñi nga xam ne nag dañuy topp loolu ba fàtte jaamu yàlla googu xërrathumul xayaatu dunia borom boobu subhanahu wa taala mu ne moo tax daañu wëlbati ko seede ci seen bopp ne ñoom di ay yéeféer lañu suñu borom nag ne mi ngi nii duma alag mukk benn dëkk lu dul ne yónni naa ci ñoom yonent bu leen waar moo tax duma alag ñoo xam ne nii dañoo doon ñoo xam ne ñu saggan lañu yal na yàlla boole ñu ca jaamam yu topp ay waaraateem topp yoonam bu jub ba leen di tàbbal aljana wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw kii mu ne dafa am koo xam ne nii moom am na ko muy labat pour takk ko soxna waaye même buy waxtaan ak moom ci mbiru diine sax day gis ne am na mesure buy génn ci moom ala kulli xaal mbokk julit bokk na li borom xam-xam yi di wax mooy rawatina téere boobu ñuy wax laxdari la ñuy tere mooy wa talazzazu bi kalamiha di bànneexoo ci ay waxam moo di ne ni góor ak jigéen suñu borom nee na jigéen ñi wa qulna qawlan ma'rufa bu wax ja waxee ji wax ju correct di ñu xam loolee dara newu ci amma yow di góor la nga xam ne moom ngay nekk ak jigéen di wax di wax di wax di wax ba muy yëngal sa yaram wax joojee da ngay gis ni du wax bu lislaam gërëm soo demee ba jàpp ne da ngay yegg ci loolu arrêteel mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk mi ay mbokk yu nekk bitim réew ñu ne ñoom day bu xet bi ñëwee dafa am ku ñuy jaay foofu nag dafa nekk bu ñuy bëri ay yére yaramu nen la ñuy def kenn ki ne ko ñu bëgg ñoo jaayee fii mu ne ko noonu ñi ay yéefar lañ du ñu seen awra du awra dara quoi du awra ñu war a mën a xoolal.
waaw ndax ñu ne fi ñuy jaay ci plage bi ñoo xam ni ay yaramu neen la ñuy def ndax dana dagan ma jaay fa am koo xam ne dafa jàpp ne awray yéeféer du awray dara déedéet mbokk jullit doomu aadama amul droit di xool awray doomu aadama na doon loolu jullit la wala mu nekk yéeféer la nga xam ne nii mooy lañ leen di ñaan ci loolu mooy plage yi nudiste yooyu nga xam ne bàyyi ma yi sax ñoo leen tane comme na ko suñu borom yàlla di waxee njaay sa sabablu la ci wërsëgu borom bi subhanahu wa taala ngal la way demal sabablu ji feneen te xam ne la nga bàyyi ca yàlla tax nga ba ko wallahi yàlla dana la wuutalal lu gën te it dërëm bi nga amee fu dagan du yem ak ñaar fukk ba nga am ak foo xam ne daganul yal na yàlla dolli yërmande góor gi njaga seen garab yi ngeen gis mu wër jàkka ji moo ko fiy jëmbat yàlla dogaloon na mu jàngi woon ca Allemagne nekkoon chemin de fer gars yi bi ñuy ubbi club aljanna fii ci Nianing ñu gis ci xale yi jàngi woon Sénégal Allemagne ñu fexe ba contacté ko ndax ni mu doon lakk allemand correct bon waa ji woo ko directeur bi ne ko dama bëggoon nga ñël ma sa bulletin de salaire bi mu ñëwee woon ko mu ne ko dama lay doubler sa salaire nga ñëw fii dama encadré touriste yi mu ne ko waaw xaaral ma seet mais nee na ba ma demee di liggéey ñëw di liggéey un mois de test bi ma fay def tubaab yi bu ñu nekkee plage yaramu neen la ñuy def donte lañ la jox ay sarbet pour ku ngeen fekk nga muur ko sarbetam waaye nee na dara nee na bi stage bi jeexee mën na ko daal monsieur le directeur damay dellu chemin de fer mu ne ma noonu non xaaral ma yokkal la mu ne de damay man daal en tant que jullit mënu maa liggéey fii yàlla dogal mu dellu chemin de fer moo ne day lay wërsëgam ci àdduna jël na ko ba deeyam jotee dee na am déet waaye xoolal bu toppoon ak ndawam liggéey foofu bi fi bàyyiwoon ay milliards yi tey faatu na li nga noonu kon loolu moo tax ba yéen ndawal jullit yi tamit day leen xàmmee lu bari ak lu barkeel day leen fexe am lu barkeel wallahi yemul ak lu bari loola yu'jibuka kasratul xabis la yastawi alxabis wa tayyib walaw ajabaka kasratul xabis lii tey ca dagan du yëm mukk ak lu daganul ak la nga xam ne daganul lum la yéem yéem mi ngi noonu wallahu aalam naam ala kulli xaal kon bokk yaakaar naa mën nañu ah ah naam ndax seen morom yéefal sax duñ ko def.
très bien def yaram ne rek ñoo koy def.
très bien très bien am na mbokk ñii ñii def yaram ne rek ñoo koy def.
très bien mi ngi noonu am na benn mbokk buy wax loolu te it nañuy nañ ñaan yàlla yàlla musal ñu maa ngi toog léegi ak benn mbokk buy yàlla xamloo histoire ya nekk Europe mi wax naa ne actuellement en France rek am na fi plus de deux millions de personnes yoo xam ne wone nañ ne ñoom ay nudistes lañu ba léegi sax jagleel nañ leen ay restaurant yi ñu xam ne mën nañ faa dem ñoom bu ko defee ndey ak doom ak sët ak yëpp def taati neen nekk di kii mbokk ñooñu ay bàyyiñu lañu yow en tant que ndawal jullit nga la waaye xamal loolu xamal ne yaag ñoom bokku leen aw yoon yoonu ahlul jahim bokkul ak yoonu ahlul jannata loolu kon il faut ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel yal na yàlla barkeelal ñu suñu ndaw ñi wërsëgal leen wërsëg woo dagan ca barkeel sàmmal leen seen diine boole ñu ñoom ca àjjana yu kawe ya wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain